بسم الإله الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi israh li sadri wa li amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli barke borom Tuuba asalaamu aleykum wa taala wa bokki jullit yi <clears throat> bokki taalibe bokki téléspectateurs yi seen télévision Lamp Fall TV ci seen émission bi ñu duppee ngeen di ko am dibeer ju jot bu 22h jotee ci guddi. <clears throat> ngeen di ci ànd ak seen bokkum taalibe Fallou Gala Syll mu jàkkaarloo ak alxaaji Fallou Syll ci wàllu machine bi ñu am mbégte di ànd ak yéen nag di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu sahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides ñuy ñaan sun borom mu may ko fan wu gudd lool waa ànd ak wér yaram dolli ko kattan ba naal yi mu naalal lislaam mu àggale ko te ñaan ko ak moom. mbokk yi ñoo jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci émission bi weesu di émission bu ñu doon fàttaliku soxna may Maymunatu Mbàkke Kubra ñu di ci jaajëfal bu baax sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem ñi mu ko seqaloon di jaajëfal mbooleem téléspectateurs yi ci ñaan yi ak bàyyi xel gi ñu bàyyi xel jataay bi mbokk yi tey ñoo am mbégte nag àndaat ak yéen ci seen émission ëttu murit tàbbi ci beneen ëttu murit saadix di ëtti koo xamante ni bii ku lëggéeyal lislaam la waaye doon ëttub koo xamante ni bii ku lëggéeyal sëriñ Tubaa xaadim rasul la bokk ci njabootug sëriñ Issa Dieng ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine kooku di sëriñ Naar jenn moom sëriñ Baara jenn moom sëriñ Issa Dieng ñu toog tey ji ci këram gi nga xamante ni bii ñu ngi fi toog ak taawam bii di sëriñ Sidi moom sëriñ Naar ñuy ñaan sun boroom mu may ko fan wu gudd lool waa yaram woon luy mébétam ci liggéeyal lislaam ci toolu sëriñ Issa Diène waaye ci buntam sëriñ Naar jenn suñ borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko ca te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi. mbokk yi eh, ñu fàttaliku nitu yàlla ñu fàttaliku muridu saadix ñu fàttaliku koo xam ne li alquran wax ne fa zakir fa inna zaati zikra tanfahul muminin boo demee ci sëriñ naar jenn da nga ko ci fekk muy fàttaliku boo xam ne soo ko fàttalikoo doomu adama dana ci mën a roye loo xamante ne bii dañu mën a defar addunaam defar àllaaxiraam eh, kooku nag lañu toog tey jii fas yéene fàttaliku dundam gu sell googu nga xamante ne bii lépp da koo jeexal ci liggéeyal lislaam waaye liggéeyal ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul damay bàyyi ak kàddu gi sëriñ Sidi moom sëriñ Naar mu nuyoo ak bokki taalibe su ko defee bu noppee rek ñu ànd ak moom ci jataay bi kon El Hadj Fallou Sylla ñu ànd taatan kàddu yi sëriñ Sidi moom sëriñ Naar. asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallima tasliman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu bokki jullit yëpp di muy nuyu bokki taalibe yëpp yéen sant leen gërëm dina delloo am nuyu yow sëriñ Fallou Galass la nu fas yéene tàbbi ci lii nga xam ne moo la fi tax a ñëw di gëstu ci taarixu sëriñ Naar Diène ngir nu waajale ko bisam bii nu jëm muy màggalam ngi ñu ko ci fàttali ko di ko ci ñaanal kon nag ñu tàmbali waxtaan wi ci ni nga ko bëggee rek incha rabbi bi Euh, jërëjëf euh, sëriñ di kon yaakaar naa ne ñoo ngi fàttaliku sax ñaanal sëriñ si naar ci fukki fan ak juróom ci weeru kor yi incha allah danañ ci ñëw lan moo sabab loolu waaye bu ñu bëggoon a xam jëmmi sëriñ naar jenn mooy kan ci wàllu bokk nan la demee ci sëñ Issa nan la demee ci maam Cheikh Rahima Fall fan la gënee àdduna ana nan na ko sëriñ sii di mën a leerale. waaw kay sëriñ bi sëriñ naar jenn mooy doomi Cheikh Mouhamadou Lamine jenn di taawam bu góor ak soxna Marème Fall ñu wax soxna Sooda Fall mi ngi ganee jamono dëkk bi ñuy wax Daaru Jën jën gi neew ca Saloum hmm, ay 1921 22 ci diggante boobu léegi nag moom li di njëlbeenam ginnaaw bi nga xamee ni yaari waajuram yooyu am nañu ko Cheikh Modou Lamine mii mi mi mi waajuram li njëlbeen lii moom moo ko nettali ci boppam ci làmmiñam kër la Cheikh Niang mii nekk Mbàkke dëkkan Mbàkke kër Morel waxtu tisbaar mu ni ma sëriñ sëriñ bi sëriñ sëriñ Ngañ jenn ndax sëriñ bi sëriñ Ngañ sëriñ naar sëriñ Ngañ la tudd waaw naar ji du aw tur Ngañ la ko la ko waajuram tuddee Cheikh Daaru Ngañ tànni nii ginnaaw ki nga tuddee da di am naar nag bi muy toll ci ndaw di wari fas ci dukki eh, eh, eh, donc mi naa àndal di sikkar di wax naaru yaay soo dafaal naaru yaay soo dafaal ba seen naar jooju rek not ba mel ni loolu moo di turam waaye moom nee na ma man ngañ laa tudd sama turu biir Ousmane la loolu moo ko wax ci moo ko wax ci làmmiñam ne ma demee Gédé sax kër sëñ baax yar Ousmane la ñu ma daa wooyee waaye sëñ Fallu moom ak sëñ Baara musta wax sax naar ngañ lay wax de ngañ sëñ Fall daanax ma demb waaw sëñ Baara ni man la géelee sëñ mu gërëm ma nag xam nga yooyu moom dañ ciy bañ a tàbbi ndax kon day ni taarixu sëñ Baara la wax sëñ naar la ñuy waxtaane ne moom a laaj ni ma waaw ndax bëgg nga Mariama Fall doomi Ibrahima Fall ne ma ne ko man Mbàkke koo bëgg rek laa bëgg ne mun ma kon baax na ne dal di woolu Cheikh Ibra ni ko Mariama Fall moom yi sa doom dama ko bëgg muy jox Modou Lamine Dieng doomi Xiisa ne Cheikh bi dañu ko loolu day mbàkkee neex na ma lool mosu am lu ma neexee doom nga jël ko jox doomi Issa sa barke yu baax ji loolu neex na ma lool ne kon baax na ne woolu Cheikh Issa wax ko lu ni wax Cheikh bi ko kat Modou Lamine moom mii dama ko bëgg a jox Marema Fall Marema Fall mooy maam Sooda dama ko bëgg a jox Marema Fall doomi Ibra Fall ne mu ne ko mbàkkee li ma wax neex na ma lool. sama mag ju baax jii Ibrahima Fall ngir doom jox ko sama doom mu sama wax la ma neexe noonu nee na sëñ nee bi toog na ma juróom-ñaari weer soog a sutal mbir mi waaw gannaaw mu waxee loolu moom Serigne Touba mu ne man nag sa baay li tax bokkul ak kenn nag def defub Serigne Touba lu bokk ak leneen waaw te moom Serigne Touba moo ma ko jox nee ma Cheikh dafa joxuma ko Cheikh Issa joxuma ko. Serigne Touba moo ko jox. mun na def def Serigne nag da bokk ak lenn. bi yàlla dogalee mu feeñ jamono itam moom Serigne Serigne Serigne Naar mi di sëriñ Gañ ba mata dal jàng alxuraan Cheikh Issa moo digal sëriñ Baara mu jox ko sëñ Fallou. mu boole koog magam soxna fat jenn mi soxna fat mbooba mbooba ji li ko ci indi mooy mbooba ga ñu nekkan mm-hmm. ñee jox ma sëñ Fallu ne ba ma demee bis boo fa jëkk jëkk fanaan bi asamaan seetee sëñ falu daa woolu soxna bu sa jëng mooy waajuru sëñ Mourou bu sa jëng ne ko ngañ jenn mii de ko tibbal cere si ba weesagu ko mun ma kon xam nga ne ma bokkoon tuuti laa ma ne ko waaw mun ma falaa nekk nag ba bi ma ñëwee laa samp kër kon sëñ Fallou ba mat waaw mhm. nee na ba nu fa nekkee sëñ Fallou boole koo Sëñ Abdou Karim ab taaw moo magal sëñ Modou bu sa jëg ak sëñ Modou ci boppam ak sëñ Cheikh ak sëñ Modou Ajara Bàkke mi dëkkan ci wetu gaar ñoom juróom ñooñu nee sëñ Fallu booleen benn yoon andi nu ko sëñ Afe jox nu sëñ Modou Kanni magi sëñ bu sa imaam ko dinu jàngal alxuraan mais ba muy jàngal dinu jàngal yàgg sëñ ñëw jël nu jox nu Mor Sànge sëñ Mor Sànge yor nu jàngal ne carrière bu njëkk bi Cheikh Moustapha woote woon te maam Thierno ñëwoon te suñu fàllug suñu Massamba doonoon jëwriñ ja ne Cheikh Issa sëñ Baara la yebalan boole ko mbooloo mi ne ba jógee ci carrière bi sax sëñ Baara jaar na kër suñ Mor Sànge wàcceel na fa saaku baraay boo xay ca ca la desee te ban fa nekkee jàng di jàng di jàng ba leen xam nu xam koo nag ci wàllu alxuraan ne suñ Fallu dikkaat jël ma man jël ko moom sëñ naar mii di sëñ gañ ak suñ Moodu Ajar Mbakke ñeen yéen dama ne yóbbu ngeen tërbiyewu neen dem ni booba di fa tërbeew muy tërbeew gu métti ndax nee na boo ko jamono jooja bokk ak léegi ne booba Madina ab teen sax amu fa mbooba fa pël ga fa ñuy wax mboo di ko ci dàkkental ne moo amul teen teeni bànn yooyu nee na am na ne ay siyaan nag siyaan yi kenn ku ne da nga am ak sa siyaan wutal kubéer ak ngomb bu siyaan yi xasee jeex nag teen ba rek ne teen bi soo dikkee pël yi nga fi fekk da nga leen bëggal fanweeri nag wala ñeent fukki nag ñu soog jox goj ba bala ngaa bala ngaa duy ne nga soog a pànk goo njëkk a duy nag ngay ne ko yóbbu sotti ko suñu fal ci njaqam. moo jamono yi melul nii. dëgg la soog a tàmbalee rootal jigéen ñi. nee nañu nekk ca loola nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca di tër bi yëngu. di tër bi yëngu di tër bi yëngu ba mu yàgg sëñ Fallu ni ko dama la yóbbu nga jàngi xam-xam nee na bi ma jëlee sëñ baaxiir bu sa la ma jox doomi sëñ bàkki bu sa ne ma jox ni ko ngañ jenn mii dama ko bëgg jàngalal dama ko bëgg na jàngalal sama bopp waaye jot gee ma ko mayul dama bëgg nga jàngal ko xam-xam ne sëñ baaxee daf ko mën a jàngale ne bu lay jàngal bind bi mu lay jàngal tey jii danga koy xam ba jàng ba xamaale bi mu la war a jàngal ëllëg dami daal ci da ci booli ba di njàng mi dëgg mais ba ma fa nekkee bi may daataa ñëw fekk naa sëñ lu jël na sëñ Moodu yóbbu ko sëñ Moodu Moustapha mais bi ma sëñ Fallu jël indiwaatee nag jël see indiwaat ma nag Madina la indi sëñ la sëñ Moodu ñëw ne bi sëñ Moodu ñëwee nun ñaar la boole bennum néeg ak benn lal bu ñu tëdd ne ma sëñ Fall jàpp dékku nu njàkk ma xaajale ko jox lii sëñ Moodu mu naan jox jox ma lii ma naan la na sëñ Fall defaral fa gàtt boo xaay bi ko defaree nun ñaar maag sëñ Moodu la ko fees loo eh? noo ne noo ko fees toj ko mais bi ñuy eggal rek mm-hmm. la dokk dokki dikk ni waaw lii liggéey la rek kenn moomu ko. dëgg la mm-hmm. xam nga loolu day dindi agré ci nit. ndax luñ yaakaar ne xëy na am na ñu ko moom moo def. Mm-hmm. nga jël sa doomi bopp. Mm-hmm. muy sëñ Modou Seng ak doomi sëñ Baar yéen muy sëñ Naar yenn mi. liggéey loolu liggéey waaye bi ñoppee daa dikki waar leen ci leen kët lii liggéey la kenn moomu ko. dëgg la dëgg la. nee mos na yónni yoon woo xaay bi ñuy dem boobu am ay dàll amul waaye nañu tàng na tàng goo xay xob yi poftan yi xam nga dafa xaw a rëy. d'accord ci la ñuy jël raxas ko sab tànk wut ko laxase. di dox daf koy daf koy dàll. Mm-hmm. ne ca la nekk nag. Mm-hmm. nekk fa nekk fa nekk fa ba sëriñ Fallou woo sëriñ Baara mu ñëw. Mm-hmm. ne ma ne ko ngañ jenn mii kat yaa ma ko joxoon ne ma ne ko waaw. ne mu ne ma mu ne ko lu mat def ci moom def naa ko. ne làmb poosam génne ca xaalis jox ma ni ma ngañ ma demba jëbbul bis ni ki jëbbul ci sa baay mooy sut sëriñ loo am suñ wax ko loo wax ko loolu loo am jox ko loo xam wax ko yemal ci moom képp allahu akbar boole ma sama sama jëbalaat sëñ baara nag mm-hmm. ci njëlbeenam mm-hmm. aku tërbiyam diggam ak sëñ Fallu moom mm-hmm. loolu ci mën a wax la nee na am na yoon waxay bi sëñ luy tukki xam nga jamono ji léegi boo dee wax jamono jo jamono jii ku xamul day day day day day day day waaru mhm. nee na boobu sëñ Fallu aw fas la war mhm. ne waaye menn man maa ko sant yenn yan yan walis wi bi ñu duggee Madina booba mhm. ñëw nañ Madina Mbàkke dem Ndindi dem mm, Mesre gii dem dem dem dem dem Ngaabu dem xuru mbàkki ñëw ngaabu jógewaat fi jógewaat fi dellu soo ko demaat Medina booba waaye ne néeg bu nu fanaan maag sëñ Fall nooy bokk tëdd ci néeg bi te moom day topp ci fas yi dox waaw néeg bu nu fanaan ne nooy bokk tëdd ci néeg bi ne bu sëñ Fall tëdd ci kala bi damay wax damay wax ngañ man ni mbàkki bi ma tëddal nii def subi laaj ne bu yeewoo tànkam bii la may teg nii ne ma dem ma dem ba jógal waay ne ma jóg allahu akbar ne fan yooyu lépp maa ngi nooy bokk néeg bu ni bu ni bu ni fanaan bokk bokk bu ni bu ni tëdd mhm. waaye ci loola nekk ba sëñ Fallu gërëm ko na gërëm lii ñaanal ko wax ko yu bari yi ma ko wax boole koo boole koo uh, sëñ Baara ne kii ma la wax ñaana boobu suñ Fallu yett daar la yor boobu daari tër yett Ablaye Diop Maguette Sey Ibrahima Ndiaye yetti daar yi wala sëñ Fallu yor boobu ñoo doon jëw nii booba nee na booba uh, maam awa bu dana fay faral nekk lu bari ci loolu nekk nekk fa mu tërbiyewu soxna fat jenn mhm. soxna fat muy soxna fat boobu mag ji mhm. moom nekk ci wànagu sëñ bi bokk soxna yi di liggéey mhm. kon kon ñoom ñaar lañ boole yóbbu ñoo fa bokk nekk waaw ñoo fa bokk nekk jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci seen télévision Lamp Fall TV ci jataay bu am solo bi nga xam ne ñoo ngi koy amale fii ci kër Serigne Naar moom Serigne Baara Jenn moom Serigne Issa Jenn toog ak euh, Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Naar euh, ñuy fàttaliku rek dund ak jaar jaari yi euh, Naar Jenn mbokk yi yaakaar naa ñoo jot a dégg fi mu jot a jaar nga xamante ne bii waajuram di Serigne Baara Jenn mooy taawub sëriñ isaa Jenn waaye jaar na ci loxoy Serigne Touba ni Serigne Issa jaare ci loxoy Serigne Touba. tërbiyu sëñ tërbiyu Serigne Touba ba am ngërëmul Serigne Touba. kon day mel ne moom baayam Serigne Touba ko tërbiya maamam Serigne Touba ko tërbiya. waaye boo dellusiwaatee ci way juróom wu jigéen di soxna Marema Fall maam Cheikh Rayma Fall ko jur moom it Serigne tubaa ko tërbiya. kon day mel ne amut menn maam moo xam ne Serigne Touba tërbiyewu ko. waaye moom it am na taw tawféex ju toll ne nag tabbi ci loxol Cheikh Mahamadul Fadal moom it mu tërbiye ko. ci ak tuut tànkam nga xam ne loolu Serigne Touba daan wax mag ñi naan diw du maam Thierno day maa ko ne baaba xëy na ko bàyyil moom sañ na ne sëñ Fallou ma ne baaba xëy na ma bàyyil ah, ndax koo xam ne ba mu la koy jox ci juróom-benni at weesoo goo eh, njogonalu hmm. weesoo goo cere suba jooy ndekkee hmm. ba mat a samp kër kooku ne xam ne lu nekk ci yow moo ko def ci yow hmm. kon day mel ne ànd naag moom ci njalbeen nekkuk sëriñ Issa Diène nga xam ne sëriñ Issa digle ñu jox ko sëñ sëñ sëñ Falilu waaye ànd naag moom itam ci xilaaf ak Cheikh Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ne lépp lu sëñ Fallou daj rek ñoo ko bokkoon di ko daj ba yàlla dogal mu jàng ci biir daara ji alxuraan jàng ci biir daara ji sëñ Fallou xam-xam kon day mel ne lu ma xam kër sëñ Fallou laa ko xamee waaye lu ma man kër sëñ Fallou laa ko mënee ñu bëggoon a xam nag ginnaaw boobu bi ko sëriñ Fallou yi wàccee fekk na booba sëñ Fallou doon xalif Zal Murid boobu kañ la fi wàcc. Mm. waaw bi bi bi mu koy wàccee booba euh, jiitu na 45 tuuti. Mm-hmm. tuuti. kon sëñ Modou Moussa waaw nekk na sëñ Modou Moussa. waaw ngi fi waaw. Mm-hmm. xam nga Cheikh Issa nekk na fi ak sëñ Modou Moussa ñetteet. Mm-hmm. ci xalifaam. dëgg la Cheikh fee jógee moom. Mm. te te sëñ bi wàcc na ba ñëw. fekk fi fekk fi maam Cheikh. kon kon kon wàcc na ci biir xilaaf ak sëñ Mourou Moussa. waaw ñëw ñëw wàcc na sax ci biir nekku sëñ Issa. waaw nga xam ne moom mi ko joxe woon fekke na bi mu amee ngërëmul yàlla. waaw ah, waaw kay jërëjëf. kon ndax mos na maa nettali ni ma. Mhm. bi ma ñibbisee bàyyi Touba Mbaye sëñ Touba Mbaye ñu bari xam nañu ko ndax sëñ Mbaye ji ma. Mhm. mais daa ne suba bu ma xëyee teel. Mhm. fi ma lay naanee si café. mais dafa benn bis nag mu ñëw ma bind benn leetar sama maam Cheikh Issa jox ko bàyyi sëriñ ne bi nu ñëwee ba dugg ci biir kër gi kees gu jëkk gi ci toppaat maam Cheikh mi ngi toog ci ci ci biir néeg bi waaye mi ngi def nii xaay ci boo séen di ngay seen bopp bi ne ma jox ko leetar bi ne ko joxal mag ko jox ko bàyyi li ma def ca leetar ba dama ko ni yow sama maam Cheikh Issa naa bëgg nga defal ma naa fi ëppale naa fi gën li te naa am fanu gudd ko. naa fi ëppale. naa fi gën le. Ah. te naa nekk fanu gudd. mais <laughs> bi ko bi ko bi ko jàngee ni bàyyi sëñ bay nga ña wax lii. da nga ne wool ma ko. mu ñëw mun ma yaa yaa wax lii ma ne ko waaw ne mun na topp si la. ma doon ñëw mu jël ñaar loxoom ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan tuuli ni ma baax na. allahu akbar. loolee loolee mu ko doon fàggu nag. mën naa ni am na. Mm-hmm. ndax leen ci gis lépp. sunu borom wane na ko ci. ndax nit bu dundee juróom-ñeent fukki at yi manqué benn. sëñ naar dund na ko. dund na ko kon am na fan wu gudd. dëgg yaakaar naa ni man manam it. ku man lim fi man bëriwut. ku ko fi ku ko fi gën leet. daanaka xawma ko. dëgg la dëgg la. ndax am na seere yu bari yoo xaay yi ci loolu mën na koo seereel. ndax nit ki tur ku toll nii Cheikh Saliou Mbacké. mu Sëriñ Tuubaa lii may wax mën naa ko war ndax booba maa ngi toog lu ñëw man ak moom ak Modou Kan ak keneen waxtu ener mu tëdd ci njoowaan gi bi ñëwee sëñ Fallou ni sëñ bi sëñ naar man na ñetti fan yëpp sëñ eh, si buri si damaa sonal sëñ bi ni ko Mbàkke si buri si na la bàyyi mu ni ko yow boo ko waxee sunu borom def ko sëñ naar yow lépp loo wax te ko ci yàlla def ko allahu akbar da ko wax baamtu ko baamtuwaat ko kera fekk na fa euh, sëriñ Sëñ Abdou Khadir mhm. bii nga xaay sëñ Xaadim waaw booy mooy waajuram waaw waaw waaw ñëw na fa sëñ ba sax mhm. ba ne ah waaw ndax li sëñ wax dégg ngeen ko ñu ne ah, waaw waaw mu ne ah, kon dama yàgg ne si moom mbirum Cheikh saa daa feeñ ci moom allahu ndax li ma leer mooy doomi Serigne Touba mhm. du waxee bakkan ni wax lu am la dëgg la dëgg la <laughs> allahu akbar kon loolu ay ay ay ay ay dara jaam la ak yeneen ak yeneen ak eh, foofu sax fi lay njëkkantu. ndax xam naa ne lim seq ak doomi sëñ Tuubaa yi bari na ci laa doon jëm si relation am digganteem ak doomi sëñ Tuubaa waaye damaa bëggoon a jiital tuuti rek bi mu wàccee ba ñëw ci loxol sëñ Baara. Eh, li mu liggéey ci jamono yi Baara. nga xamante ni ba laata sëñ Baara di ko bàyyee toogu bi. waaw. loolu de moom daanaka bi sëñ bi nekkee Cheikh Ahmadou Lamine waajur nekkee mhm. daa doonoon jëwriñam rek mhm. lu mosaa liggéey lu ne moo si jiitu moo sa man bu dee lu ñuy liggéey bu dee lu ñuy joxe ci taxawaayam ci fànn yëpp loolu moom daanaka ni mëneesu la détaillé lépp waaye lépp daal loolu ba ba ci li ci mujj muy xam yu yees yi nga xaay mooy bàq ya nga xam ni Cheikh Abdoulaye Mbacké sëñ Baara yan la ko liggéeyloo kere bi mu koy jox liggéey bi daa woolu sëñ naar mii ni ko nga ñëw te boo ñëw nga ànd ak Abdou Sourang bi leen sëñ Blaat ne ko léegi armeeli Tuubaa yi dafa xat. ba yu mag yi egg na ba egg na ci tegale nit ñi. te suufu Tuubaa si seen suuf rekk la. wallaahi kon jëruñu tegale nit ñi. léegi nag liggéey bi plan bi ñëw ñu jot naa ci. dama ko doon xalaat séddale ko juróomi kilifa tudd na leen sax. waaye ginnaaw bi ma ne daal lii lépp am naa kenn ko man. wallaahi muy sëñ Baara. Mm-hmm. kon nag boo demee ne ko digal naa ko na ko liggéey. xam nga sëñ Baara mi ngi ko euh, liggéey ci liggéey bi lépp ñeenti ñeenti ñeenti weer la ak fukki fan ak juróom. ci lañ ko miiree defar lépp. ci lañ defar lépp waaye juróom fukki fan yi juróom xam nga sëñ Baara daa wàcc liggéey ci biir liggéey bi. Hmm. fukki fan ak juróom taxaw ko liggéeyuñu ko. Hmm. looloo ko waral bi fi sëñ Baara jógee bi fi sëñ Baara nekkee ba baat. Hmm. sëñ bi liggéey bi moo doon taxawu lépp huit fa la koy fekk ba six heures nangam muy soog a wàcc ñëwaat. ne ca ba miir bi egg. ba ñu tàmbali jàkka ji ba toll ci xubba bi wala suñu baar wàcc ci liggéey sëñ naar moo eggale liggéey boobu defar morgo yi raax miir bi pentur ko jëbal sa bi Cheikh Abdoulaye Mbacke nga xam ne ci biir liggéey bi la sëñ Baara wàcc. ci la wàcc liggéey. waaye fukki fan ak juróom ngeen ci noppalu mu dalaat liggéey bi. mu tàmbalaat liggéey bi waaw. te bi muy dalaat liggéey bi boobu fekk na mooy sëñ Baara ci kaw suuf. mooy sëñ Baara ci kaw suuf waaw. allahu akbar. te bi muy jébal sëñ laat caabi yi. Mhm. man booba maa ngi ànd ak moom soriwuma ko ak ñeneen mbooloo bari ak ci kilifa njënd yi baree baree bari. Mhm. Sëñ Blaat da ko wax ne ko sëñ naar seen léggéey boobu de waxuma la yéen ñi ko doon liggéey. waaye képp ku fa jaarte bokkul ci yéen def ca daraam sax mbiram dana ci yéwén àdduna ak àllaaxira. allahu akbar laa ilaaha illallah. dégg ko. Mm-hmm. noonu la noonu la ko waxee keroog. Mm-hmm. kon nag moom. mbiram noonu rek la demee. Mhm. kon a mel ne diggam ak sëñ sëñ Baara moom. Mhm. bi ko sëñ Baara yi bàyyee toogu bi da koo bàyyi waale liggéey bi. waaw ndax loolu mooy tegtale ne ndigal li mu mujj jot ci sëñ Touba. moo bi mu daataa ko àgg teg na ko ci loxoom soo ko dem àjjana macha allah kon léegi ñu ñëw ci relation digganteem ak njabootu sëñ Touba gi nag tàmbalee ko ci Cheikh Abdou moom nga wax. ndax gisoon nañ ne. Eh, daa nañ wax ne sëñ naar ku ko gën a ñemee addiya amul ci yoonu murit mm. eh, loolu itam tegtaloon na ci kero bi ñu àndee ak yow mm. nga nga dajale sa addiya di ku ko jébal si ci taax mi mm. la mu waxoon ne lu ma waay lu waay bañ ma jox ko sëñ Tuubaa ko bu ko teg sama loxo bi loolu dañuy tegtale ne kon relation bi diggam ak sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa yi moom de bi mu bi mu bi mu bi jébalee sëñ Fallu jébalee sëñ Baara daa def sëñ Baara muy léppam nag moom ndax mos naa wax ni ma man sëñ Baara mosula gis sax sama kurus. sama kurus waaw. dama julli di woor waaye sëñ Baara mosul a gis sax sama kurus. ndax fu ma fu ko fekk dama koy wan ko rek. Mhm. man yow rek laa am yow rekk laa yaakaar. laa mhm. kon loolu ak dëggal la. Mhm. waaw bi fi sëñ Baara yi nekk it da nga daa dox lu gën lu baree bëri diggante Sëblaat sëñ Baara. Euh, bi sëñ Baara jógee mi def ak Sëblaat it diggante boobu yàggul lool. xam nga defe naa sëñ Baara lim jiitoo Sëblaat. ñaare wala ñaare wala ñett lu ko lu ko ëpp waaye bi sëñ laa di bi ñu noppee ci liggéeyu armeel yu yees yi xam nga xabru bàqe yi xam nga daanaka ca diggante la sëñ laa soññee yokk jumaa ji waaw at mooma ca jamono yooya sëñ bi daal di dajale na 15 millions no ànd ak moom fekk sëriñ bi Touba Belel mu jëbal ko ko. ci yokku jumaa ji. waaw ci yokku jumaa ji. te booba ñu ngi soog a jóge ci liggéey bi. Mhm. mu nekk ci kees kees kees xalifa. Mhm. sëñ bi ma koy sant kera yi ci bari da ko wax sëñ Moodu Maamun moo ko jot waaye lii may bëgg a wax moom sëñ moo ko waxal boppam ci làmmiñam moo ko ne euh, sëñ naar li murid yi wax naa sama am Seex Isaa mujj na fu Sëriñ Tuubaa nekk lu mu fa jege mu laal ko ci njëriñam loolu ne ko bul fàtte Isaa ko loolu lu wér la waaye jëfam nag moo tolloo sëñ bi yow mm-hmm. nag ci yoon woowu nga jaar laa ilaaha diggam ak sëñ Saliou wër. sëñ Saliou moom moom moom moom kéemaan la mënees koo wax. moom dañuy dañ doon ñëw tuuti ci diggam ak sëñ Abdou Khadir ndax daa mel ne moo sabab lii ñu nekk nii. baa mu ko waaw bisimilah waaw. Mm-hmm. waaw Cheikh Abdou Khadir Mbacke. Mm-hmm. radiyallahu anhu. Mm-hmm. yéen ak yàlla dooleel leer taas na ci barkeem. amiin xam moom ak xilaafam yàggut. yaakaar ci la toll. waaye onze mois yi li muy gàtt gàtt moom yàlla dogal na liggéey bi nga fi joxoon moom. liggéey na ko ba liggéey ba egg ba mu jébbal sëñ Abdou Khadir caabi ya ba noppi sëñ Abdou Khadr di soog fee jógee ba sanc ko. nga xam ne ci biir xilaafa gi la muy gàtt gàtt. am ngeen sas ba léegi waaw mooy mbaar mi mbaar mi ñu siyaaree xalifaam tey rek. waaw mbaar moomu. waaw mi néeg bi. moomu waaw. noo noo ko noo ko noo moo ko liggéey. moo sës ci daqaar gi. moo moo ko liggéey. Mhm. bi loolu amee nag. Mhm. ba ba noppee. Mhm. sëñ Abdou Khadr da ko ne mbaar mii nga xam moom laa yoroon nag man bu yàgg lu jiitu lii. jox naa la ko nga ba yóbbu ko barkeeloo ko nga xam ne da ngeen faa fekkoon mbaar. waaw mooy mbaar bi nekkan fii rek mu jëlee fii rek. ngeen dindi ko mooy mbaarum seng. waaw njoowaan gii. Mhm. gii nii. Mhm. daa toog mi ngi nii. allahu akbar ko boole woon ak da ko boole woon mbaar ma. Mhm. moo tax bi ma koy bi ñu koy defaraat sax. dama leen li nga xaay moo ci nekkan mi ngi si. bu ko kenn dindi. allahu akbar nañ ko muur rek. bàyyi ko noonu waaye bu ko kenn dindi. allahu akbar. loolu boo njoowaan googu moo nekk nii. loolu Seydou sant ko bu baax. kenn jox na ko fa sax ceeb. warga suukar. ni ko nag du lekk ceeb rek wala naan ataay wala naan kafe rek. lu ngeen ci fas rek di ngeen ko ci am. chetttt macha allah jërëjëf sëriñ Sidi moom sëñ Naar amaat na solo lool lool lool ci leen jot a déggaat ci ni nga xamante ne bii moom la indiwaat ci diggante sëriñ Naar ak Sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nga xam ne loolu moo sabab sax mbaar mii ñu toog tey jii nga xam ne moo doon mbaar ma Cheikh Abdul Xaadir toogoon daan fa jaamu yàlla ba ba ba liggéeyloo waat ko sëñ naar mu liggéey ko mu boole waat mbaarum seng moom mu jox ko tax tey jii sëñ Sidi ànd ak njaboot gi ay rakkam yëpp ñu ànd yeesalaat ko nii ngir dundalaat ko kër gi kon day ne xam nañ diggante sëñ naar ak sëñ Abdul Xaadir xam digganteem ak Cheikh Abdul Ahad xamit digganteem ak sëñ Baara digganteem ak sëñ Isaa ba ci digganteem ak Cheikh Mamadul Fadal waaye mel na nag jamononte naa koo xam ne yàlla da ko boole woon ak moom déggale koog moom mu mel ne ku mel ne Cheikh Saalihu Mbàkke te lu ëpp ci ab liggéeyam ci moom la ci ci moom la jaare waaw waaw Cheikh Saalihu moom mooy noonu la mel nag moom rek moom tegoon na ko foo xay sori na lool lu musaa lu musaa am rek mu na maa ànd ak dem fa mu ne ko man lépp lu rek yow laa ko yow laa ko yéene. Mm-hmm. maa ngi fàttali xam nga li mu fi nekkee tam nekk fi xelu saaral murid moom sëñ Saliou liggéey xelkom gi mën naa ne sëñ Saliou nekk na fi ba jóge fi mm-hmm. menn at mu joxul ab liggéey sëñ naar ci xelkom amul. moo xam lépp mu fi nekk lépp. yaar mu dem ruuj wala reb bi ëkk wala mu góob waaye amul benn benn at moo xaay e, e, e, sëñ bi na ko. ba ba ni mu fi jóg ba ba fi jógee. maa ngi fàttali xel koom jooxaay sax yaakaar naa mooy ji mujj def ndeysaan. ma dem ma dem boori Kajoor ni ma ma ñu sëñ bi. ma ñëw fii bi ma ñëwee mu ni mbay génn ma nee na bu fekkee da ngaa ñëw nag te te ngaa bàyyi ba suba. ba ma demee mu dal di yëkkati ñaar fukki million jox ma ni ma yët ko sëñ Saliou. ñaar fukki million. waaw ma ne ko ah sëñ bi yow sëñ baa ngi lay liggéeyloo xel koom. la nga fay def ci ay fere ak gasoil ak ndukiif dina romb ñaar fukki million tegaa woon lii ban dem ba ñëw mun ma ah déet yëg ko de it ko rek. booba demagu leen. booba demagunu. waaw demagunu <laughs> maa ngi fàttaliku tam lu ñëw fa. mu jox sëñ Saliou addiya. Mm-hmm. kere bi sëñ Saliou yi wax Moussa Gueye moo koy jottali. Mm-hmm. kees ngay jëkk a jot gi ci toppaat. Mm-hmm. daa wax ni. bi mu ko joxee ne bi sëñ Saliou sant dani sant gi may sant sëñ naar mii. sëriñ yàlla. ak Serigne Touba ak Baye Cheikh Issa Diène rek laa koy seereloo. nga xam ne Baye Cheikh la wax. waaw ak yéen ak yéen ñi mu àndal. Hmm. Moussa Gueye mi jottali ni nee na sëñ bi nee na cant gi mu sant sëñ naar yàlla ak Serigne tubaa ak Cheikh Issa de mu ne ko bàyyi Cheikh Issa laa la wax. boo ko fàtte ba léegi moom laa la wax. Hmm. Hmm? moom laa koy seereloo. maa ngi fàttaliku tam sëñ bi yónni ma fa benn bis waxtu yooroon ma dem am lu ma fa yóbbu. ba ma demee Saliou Diakhaté li ma wax bu ko déggee mën na ko fàttaliku. ma dem na sëñ bi di fukki fan yi juróom daanaka kenn eggul ci moom day sax day nañ nañ ci yem ci Modou Gaye mm-hmm. man ka kon damay mun naa waaw xaaral ma yegg wax ko ni kii matul cinq minutes mm-hmm. mu dikk ni ma sëñ bi nee mm-hmm. loolu ba mu koy wax it boolewu sëñ naar ak ku jóge kër sëñ naar nee nga ñëw macha allah waaw ma daal di yegg daal koy jébbal li ma sëñ bi yoon yónni woon toog naa itam sëñ Saliou defar café sëñ bi toog ñoon di xelli ba ñu xellee jox sëñ Saaliw mu ni joxal sëñ naar jox sëñ mu naan ba tegu kaasam kii xelle man ko xelle man kaasam sëñ naar bi moom barkeelu ci tet tet tet tet tet macha allah am ay secret yu bare yoo xaye nag da ko daa seq ak Serigne Saliou yoo xaye moom mhm. du waxtaani rajo mënees ko wax dëgg la dëgg la jërëjëf kon loolu leer na mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen télévision Lamfal TV seen jataay bu euh, ëttu murit ñu koy amale fii ci kër sëriñ Naar Jenn moom Serigne Baara moom Serigne Issa ndax day mel ne ci xilaaf ak alaaji Baara ci la wàccee ab liggéey waaw kon mel ne kon fa mu tàmbale woon mu baarakol ibtidaa yi waaye may moonal intihaa yi dal na ko foofu mhm. ñu bëggoon a ñëw fi nga xam ne fi la jeexale liggéeyam ci Cheikh Mahamadou Lamine Baara waaw moom itam de bi nga xamee ni bi nga xamee ni eh, Cheikh Saliou jóge na fi. Mm-hmm. dafa doon dem yeeslu ci ëllëg ji baara. Mm-hmm. taxaw teemu nag sëppul dara ca nam doon doxee rek. Mm-hmm. noonu noonu noonu yoon wala lan di jaar. yàlla dogal nag yàggul yàgguñu yàgguñu yàggu fi lool. waaye nam doon doxee rek sëppu ci dara. ndax booba. dafa mel ni kon fa mu fa mu tàmbalee woon rek. Mhm. fa la dellu siwaat dëkk la waaw muy kër sëñ Fallou euh, jërëjëf euh, sëñ Sidi jërëjëf euh, sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu ngi seetaan kon day mel ne ñu ngi doon waxtaanee dund ak jaar jaari yi Naar jenn yaakaar naa nag fii nu jaar doy na tënk ci xam dundu nituk yàlla. Mm. ci fi mu tàmbalee ci. njalbeenam nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Issa Dieng ñoo di maam waaye ci kaddu Serigne Touba nag ci lañ ko loo ndax Serigne Touba moo jekki-jekki woolu sëñ Cheikh Ibrahima na ko sa doom laa bëgg a jox doomi sëñ Issa woo sëñ Issa mu ñëw mu ne ko sa doom laa bëgg a dénk doomi Cheikh Ibrahima kon day mel na doomi maam Cheikh Ibrahima Fall kon day mel ne loolu lépp sababu Serigne Touba la moo doon sàkku ji Serigne Naar moo tax Serigne Naar sun borom subhanahu tax laa dimbale ko ba mënutoon wàcc yoon wi kon dañuy daal di ñëw nag ci Euh, lii nga xam ne moom la tax nga jàpp di ko ci fàttali ci fukki fan ak juróom ci weeru ko yi lan moo sabab loolu day bis bi mu gënee àdduna wala bis bi mu génnee àdduna wala rek yaa ne dinaa ko ñaanal ci bis boobu wala day bis boo xam ne moom ci boppam daana ko hmm. waaw bis bi de moom noo ko noo ko noo ko tàmbali di ko ci defal di ko fàttali di ko ñaanal ndax a moom dana koy roy te bi fi Cheikh Mor Lamine jenn waajurum jógee da ko wutal bis di ko ci fàttali ko ci di ko ci ñaanal moo tax ñun itam mu fi jógee noonu di ko fàttali ko ci ñaanal bis bi mu nelawee woon nag dama koo bàyyi ndax juróom fani koor koor la te ci fukki fan ak juróom laa ko damaa mooy damaa mooy bis ba waaw da dem ba ci fukki ak juróom ñu soog a tàmbali di ko wooteel di ko wooteel màggal gi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ngir bàyyi bis bi nga xam ne mooy bis wàccoon ab liggéey waaye li sabab beet mooy loolu rek fàttali ko ñaanal ko ci rek ndax lu baax lu doy yonent bi gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, dañu koy ñaanal waxtu woo julli ci moom rek da nga koy ñaanal. Mm-hmm. Mm-hmm. keneen ko baax koo tudd. ni mm-hmm. radiyallaahu anhu lu mu màgg màgg màgg da nga koy ñaanal. kon nag lu baax moo du doy. déedéet looloo mooy sabab ñu di ko def. jërëjëf euh, sëñ Sidi laata ñuy ñëw nag ci. tuuti ci tënk dunduk Seex Isaa tëje ko jataay bi bëggoon nañoo jottaliwaat ay kàddu ndax gis nañ ne ginnaaw sëñ naar ak léegi yaa ngi ànd ak say rakk ànd ak say taalibe fas yéene fi sëñ naar tegoon tànkam seen tànk du ko teg ko benn yoon muy sas yu jëm ci kër sëriñ Touba du booy liggéey sëriñ tubaa yi nga xam ne njabootu sëñ Issa gi ñu ngi koy liggéey sas yooyu du booy ba gis nañ liggéey bu am solo bee nga xamante ne bii bërki dem boo Ndiaye liggéey ngeen ko ci kër sëñ tubaa gi nekk Daarul naan muy salle de bu mag moo xamante ne bii ay centaine de million moo ci dem waaye ko ak ba mel ni ànd ko ak rakk yi ngir dundalaat ba ku ñëw fii danañ xam ne fii nitu yàlla moo fi nekkoon diggante soosu yan kàddu nga yëkkati ci yooyu cant jëme ko ci njaboot gi nga àndaloon ci liggéey bu mel noonu mm, waaw xanaa di sant ñëpp euh, liggéey bi moom mm, ku fi ñëw ci kër gi nii te seet lu xaman kër gi di nga xam ne soppiku na mm-hmm. waaye lépp nag mm-hmm. borom yayoo ko mm-hmm. ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Jenn waajuram bi mu fi jógee li fi sëñ bi fi sëñ naar bàyyi sax sëñ sëñ baara bàyyi ko fi tabax bi mu fi bàyyi nu mel nii sax ku néew sëñ baara bàyyi ko fi suñ baara tabaxum ñaari néeg bu seng bu gàtt boo xëy dina senka wala fi bàyyi la ko gis ci kër ga lépp sëñ naar ko fa def ci kër sëñ baara waaw lépp lépp moom miir kër ga moo dafa bëti maaye waaye suñ baara mu defu woon dara allahu akbar moom daanaka ni moom moom it daa soxla woon lu may dara lu may Sëriñ Tuubaa rek. Mm-hmm. toll nag nag mooy suppiku. Mm-hmm. mooy suppiku ba xay na moom lii mu fi bàyyeeku ci néew sax. Mm-hmm. suñu baat bàyyiwu ko fi woon. waaye nag nuyu ci man lépp. ci ci ci taxawaay. Eh, ci suñu yéene mënoo def lépp sax waaye lan ca man def nañ ko mooy lii nu nii defaree kër gi nii ndax képp ku fi ñëw te xaman ko boo gisee tey di nga xam ni soppi ko na ko Euh, njaboot gi rakk yeeg taalib yeeg ñëpp nag kenn ku ne euh, fa sa pas-pas ak yéen yéen sama noon toll nga def ko may lu ma am ak lu ma man ak lu su ma jox def naa ko ci def naa ko si def naa ko ci liggéey bi waaw yàlla mel nii mhm. ndax maa ngi ko tàmbali ci gàmmu wi mhm. mu yegg euh, ci ci ci ci koor gi mhm. kon daanaka juróom benn weer juróom ñaari weer lañ ko liggéey ndeysaan eh, jërëjëf eh, bokk yi loolu mooy fii ñu jàkkaarlool rek ak li yi ci biir kër gi xam naa danañ ko gis incha allahu rabbi waaye kon xam naa dafa mel ne liñ dese ci waxtu bariwut waaye day mel ne nag sëñ naar sëñ baara ñoom ñëpp ci biir sëñ Issa lañ tàbbi mm-hmm. loolu nag tawfeex ji yàlla defaloon sëñ isaa ci digganteem ak sëriñ Touba. Mm-hmm. lañ bëgg ñu tëjee ko jotaay bi. waaw kay moom day ku neex a waxtaane ku naqari waxtaane la. ndax ab taalibe la waaye taalibe bu doy waar la ndax li may wax nii eh, ci ci ci ci sëñ Baara laa ko déggee eh, xaju fi nag damay damay damay ciy tënk tuur rek aslëf ndax du du du mënuma mënuma wax lépp du ma wax lim njëlbéen ga ba mu jeex mun maa wax mujj ga ñëw ma digg damay ci tënk tuur rek aslëf taalibe boo xam ne bi ngay ñëw di jëblu ci Sëriñ Tuubaa ba ngay daataa jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la feeñu wan la sëriñ bi jëx ran sëriñ Tuubaa jëx ran nga soog a jóg dikk di jébbalu ji boobu taalibe du taalibe bu ndaw te nee na bi ma bi ma bi loolu amee yonent bi feeñu ma dama mënta nit li lépp dafa du xaj waaye ne damay damay nafar alxuraan ci guddi gi boo si boo fi jàngal waxtu alxuraan boobu ba jàng xam-xam ba ñoom mu agsee sooratul hajj yi ay fakka ay min xayrin ahlaknaaha wa hiya saalimatun ba ca waxasirin masiidin ji nee na ma mel ne def nelawi nelawi gam-gam xam nga nelawi gam-gam wala yi xam na ko nelawagoo bu sa bu say bu say xeflee laaj sa xol nelawagul bu la laalee sax nga yëg ko nee na ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal ma seexal ma wenn di jooram di ma nàmpal wenn di jooram waaw nee na bi ma nee tërëti ci tërëti ci gént gi hmm. ci ci loolu mel ni gént du gént ndax boo nelawagul dëgg la mais meew maa ngi saf sàpp sama gémmiñ sëñ Baara Dieng na ma Cheikh Saa ma ma ne am naa lu mat ayubis sama ñaari tuñ yi xaw moo ko mën a taqalee ngir saf gu meew ma saf saf suukar laa ilaaha illallaah nee mu dal di gis nag leer gu tàmbali ci baaraam bu déyam bii hmm. fa mu toog ca njenn rat hmm. xutti ba jàpp fi Sëriñ Tuubaa toog ci Tuubaa gi mu jàkkaarloog moom kon moom yonent bi moo ko feeñu. <laughs> won ko Serigne Touba. fekk na nag waa juróom moom. <laughs> am na borom xam-xam yu ko waxan yooyu yëpp. <laughs> waaye dafay xajut moo tax dama koy tënk. ci la jóg nag fëgg baayam ci guddi gi mu laaj ko lu muy dox mu wax ko ko ni ko Serigne may dégg ci penku la bëgg nañ jébbalu ji. ñoo ne ko xanii an lakk. ah loolu mooy ndokkale maanaa rek. dëgg la demal nuyul ma ko. ndax xam waxaan nañ ko ko am na wàllu bu ko waxaan loolu ba tudd amaloo doon nuyul ma ko ne ko naa ko sama saa bopp damaa tile waaye jébbal naa ko sama jébbal naa ko sama lépp. Mm-hmm. nee na ma ci ñeewanteeg bàyyi ak ak waajuram nag te booba réew mi ni mel léegi ni woon. Mm-hmm. cib àll rek ngay dox. Mm-hmm. ak i mbooy ak i garab. amul waxuma la ruutu ruutu wata waaye bu sareet sax doo ko gis. te guddi na te wóor na bàyyam ne doom ji day faanee dox yende dox dootu ak. dëgg la. nee mu dal di may mu dal di jóg na topp ci man te boobu mag la. Mhm. nee mel ni lu may gunge. ndeysaan waaye nee ay jéego yu néew lan dox rek. Mhm. man dal di koy réer ma mhm. ndax man boobu ma leeru sëñ bi gànd na ma. Ah, waaw ni ma dox gëstootu ma kenn mu lànd ak man. dëgg la waaye nee na fi fi fi fi sëbëtu sama baay noppee tege ci man. laa dal di gis Jibril alayhi salaam ci melokaanu soob yàlla. soo nee ma wax may sekkere ci kii ma jëm ak li ma tax a jóg. allahu akbar ne ma dal di jàll ceey fekk fa soori jóob mm-hmm. yee ko ci wax ko li ko tax a jóg mm-hmm. ma daal jébbalu ma ci moom jébbalu moom xaati tegguñ Sëriñ Tuubaa laata muy ñëw la amul jaataa gis sëñ bi waaw nee noon da andi dox di dox bi ñëwee ba fi déggu mbal bii mm-hmm. dégg bi mbal gi nekk tey hmm? nee na fekk fi déem gu yaatu ndug boobu ko set toog fa di feral suñu ñaq ak ci suñu pën ndax boo jigéen nañ sëñ bi ndax xam nga mbal dégg baa ngi nii dëgg la dëgg la boo ay kër nekku boobu àll rek la mhm. mais fi ñu toogee si doon déem googu mhm. gépp ruugoo xay jëmm jëmm yi àndal wuyoo jënd ci àdduna doon sama tëwal bi mhm. faw la ma fekk jébbalu ci man te gisaguma sëñ Tuubaa nee na booba su fekkee ni daraja wala mbooloo wala turu siiw moo ko tax a jóg kon day wiñu ko ndax moom jot na cër boobu jot na ci ba noppi. te gisagut sëñ Touba. déedéet waaye ne moom li ko tax a jóg mooy gis Serigne Touba jébal ci liggéeyal ko ba làqu mu gërëm ci tënk daal ci gàtt bi mu ñëwee itam moo tax ab ak ab liggéey mu yàggut. ñu jébbaloo daa bari maa wax lépp damay tënk. dëgg la waaw. Mm-hmm. aw sas ko sëñ bi dëgg rëddal ni ko bayal ma lii bu ko weesu. ba mu jeexee muy dolli péng mu yebal benn taalibe bu mag ci taalibe bi bu ñëwoon siyaare ko ñoom Omar Anta Ngune Guèye dëkk Njàmbur. Mm-hmm. ni ko jëlee gopp ba ci moom. Mm-hmm. mu diktum dal di koy gërëm. loola dama koy tënk mun maa tënk mun maa wax lépp. kon kon daa mel ni yënduwut bi. déedéet aw sas la ko dal fii ci Daaru Xuddoos gi loolu sëñ naar nem ci laat bi mu ñëwee ci bis bi rek la ko dal aw sas fii Daaru Xuddoos njiyee fukk beref ne ko bayal ma liiti ba ko weesu ne ba sas waay jeex may dollim péng mu yebal kooku mu dikk ni ma gob bi ci man ni ma kaay wuy sëñ bi mhm. ne dal di may gërëm ne gàtt gi fi tax fi gàtt gi mu gàtt mhm. tax may jiñoonteeg sëñ bi ci bëgg a toog mhm. yàgg fi. nee ma ne ma yow jant tey bii nga jëbloo ci man. ma rëdd la sas wi ne la bayal ma ko nga bay ko. soo wéyee di liggéey ba jant bi soo. yoonu murit dana bari ko faloonu nag fële ko kon nag dikkal toog boo dee nga toog te yónnee si. ci ci bisub keroog la ko Serigne Touba jëkk a xamal ne ko yow kenn attan la ko man. loolu nag Serigne Touba da ko doon baamaatal miraaran ay yoon. Mhm. mag ñi mu jamonoonte ñu si ba digg nañ loolu. Mhm. di ko Serigne Touba sukkuraam jéb joxe addiyam wala leneen Serigne Touba ni ko mhm. yow nii nga may defal. képp ko ko defal lu man mu jóg yow kenn ku lu man. Isa xobu xel la ëpp na gémmiñu tef. waaw waaw daa mel ni mu ji dégg nañ kenn wax na ko ba tàyyi. ba tàyyi. yow nii nga may defal. képp ko ko defal ku man mu jóge fi. yow kenn atul ku lu man. kon nag ci tënk rek la ma koy tënk maa jeexal lépp waaye xam nga boo jàngee xasaayit yi nii mu jébbaloo sëriñ bi leeral na ci moom na mu na mu na mu na mu na mu demee si yonante bi dëgg la dëgg hmm? xam nga moom dañu moom ci bi mu jëmee ci sunu borom sunu borom moo ko tegtal yonante bi sallallahu alayhi xam nga tegtal nag ñëpp xam ñun ñëpp xam nañ ko ah, néewul damaa nekkal fa yàlla waxul loolu déedéet niwul damaa xottee asamaan dem nekk yàlla waxul loolu. déedéet. Hmm? Mhm. dala ne yàlla allah muhammadin wa xaadiri muhammadin li samad la sëñ bi wax. Mhm. lu leer ma jëmee sunu borom sunu borom moo tegtal ni ma demal ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la. Mhm. waaye sëñ bi moo bind ci xasaaya itam googu tudd saara ilaahi nii. dala xaleel ulama ma laa yasal xuwati wa awliya. dëgg la. ñi nga xam ne dañoo bokk ci wàllu yi te mm. borom xam-xam yu mag yi mm-hmm. ñooñu bu ñu ñëw ci ma yoon fi moom leen di tegtal dëgg la kon Cheikh Issa moom si ñooñu la bokk la ku eggul foofu rek mm-hmm. jigéen woo ko sax ci wax barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf euh, Serigne Sidi yaakaar naa ne li mu indi leer na naññ ba noppi it nag xam-xame na te itam jur na njëriñ lu yaato yaatu euh, noonu ma ko waxee woon ci njalbeen gi fa euh, fa zakir fa inna faati zikra tanfahul muminin ñu wax ne inda euh, inda zikri salihin tansilu rahma buñ dee fàttaliku nitu yàlla day wàcc yërmande yàlla ci kaw suuf loolu mooy la nga mën a royee ci loolu kon yaakaar naa ne am nañ bind bu bees peq ci gën a mën a royaat sëriñ naar jenn moom sëriñ baara dama du ma ci di ko wax daana wax ci làmmiñam te dégg naa ko ba tey muy wax na lu ma nit bañ lépp loo xam ne nit bëggut ma jox ko sëñ Touba jërut mu koy teg sama loxo ndax man lu tege sama loxo dana dem ci loxol sëriñ Touba loolu nag moo ko may lam tànnaloon boppam ci sëñ Issa wax na ko damaa bëgg ëpp ëppale gën le ànd ak fan wu gudd. ànd ak fan wu gudd. loolu la ko sunu borom subhaanahu wa taala defal bokk na ci ñi ëppale ci yoonu murit waaye bokk na ci ñi ci gën le ndax gën le weesuwut lépp loo baax la jox ko sëñ Tuubaa loolu mooy li gën le te mm. sëñ naar lépp lu mu am jox na ko sëñ Tuubaa mm. loole nag yal na ko sunu borom wisaare ci njaboot gi yëpp may la fan wu gudd loolu waa ànd ak gi am te defal ko sarak yi defal ko taalibe yi eh, lii rek moo doon jataay bi nga xamante ne bii ñëwoon nañ fii ci kër sëriñ naar doon ci fàttaliku dundam gi ak jaar-jaar gi ngir waajale ko bisam bu tedd bi nga xamante ni mooy doon altine fukki fan ak juróom ci weeru kor wi incha allahu rabbi dëppoo ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di bala ak ñëpp di leen baal ak di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram waaye yàlla na yàlla ay leer ak ay xiwal Serigne Naar Jenn ak mbooleem njaboot gi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا ملاك